مستودع الحبيب الصف الورق محبة البلاد لا بشر أنت ولا مضغة ولا علق مطهر تركب السفينة وقد ألجم نسرا وأهله الورق وردت نار الخليل المكتتمة تجول فيها ولست تحترق تنقل من صالب إلى رحم إذا مضى لم بدا طبق حتى احتوى بيتك المهيمن من خندفها الأليا تحت النطق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 فاتح لما يطور خاتم لما وقنا سر الحق بالحق والهدي الى صراطك المستقيم وعلى هذه حق قدر ومقداره العظيم متى يبدو في الدجيل بين جبينه يلوح مثل مصباح الدجيل المتواقد فمن كان او من لا يكون كاحمد نظاما لحق او نكالا للملحد اغر عليه بنبوه خاتم من الله برهان يدرك ويشهد وضم الإله من اسم النبي لاسمه إذا قال في الخمس المؤذن والشهد وشق له من اسمه ليوجد له فذو العرش محمود وهذا محمد تهدي به الناقة الماء معتجرا بالبرد كالبدر جلى ليلة الظلم وفي طفي وسنى بردته ما يعلم الله من ومن كرم إن الرسول لسيف يستباع به مهند من سيوف الله مسلول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 fa inna fadla rasulillahi laysa lahu haddun fa yuridu anhu naatiqun bi famin law nasabat qadrahu ayatuhu raywaman أحيى اسمه حين يدعى دار السليم لم يمتحنا بمتى يعقول به حرصا علينا فلم نرتب النعيم أي الورى فهم معناه فليس يرى بالقرب والبعد فيه غير ممتحن كالشمس تظهر للعينين من بعد صغيرة وتكل الطرف من أمن wa kayfa yudriku fi dunya xaqiqatahu qawmun yaamun tasa'alu anhu bil qulubi fa mablagu l-ilmi fihi annahu basharun wa annahu xayru xalqi llahi kullihim man za llazi masaaqa wa man lahu l-husna faqat muhammadul haadi llazi alayhi nuurun habat muhammadun basharun laa kal-bashar bal huwa kal-yaaquuti bayna l-hajar allahumma salli ala man faatihiyatuhu bi badii l-ijaadi baraa'atu l-istidlaal wa man xaatimiyatuhu baraa'atu l-maqtami wal-kamaal allahuma salli ala sayidina muhammadin bahri anwarika wa madini asrarika wa lisani hujjatika wa urusi mamlakatika wa imami hadratika wa tirazi mulkika wa khazain rahmatika wa tariqi shariatika almutalazi bitawhidika insani ayni lwujud wa sabab fi kulli mawjud ayni ayani khalqika almutaqaddimi min nuri ضيائك صلاة تدوم بدوامك وتبقى ببقائك صلاة لا منتهى لها دون علمك صلاة ترضيك وترضيه وترضى بها عنا وعن والدينا وعن أزواجنا وذرياتنا يا رب العالمين بي سادة من الزين أقدامهم فوق الجبال إن لم أكن منهم فلي بحبهم عز وجاه فبجاههم وبعزهم طيب لنا شفاء واختم لنا بالخيرية من لنا رب سواك ثنية ربيعي بمنحتي شفيعي بمنطق البديع أبدا محمد بمدحتي شفيعي بمنطق البديع أخير يا ربنا صل على خير لنا ممن على السماوات العلى تهنئة ربيع بمرحة شفيع بالمنطق لا بديع أخي بها مؤمل شهر مولدي شهر العلا والسددي شر النبي أحمدي شر غريب ولي ربيع إمام خطي شفيعي إمام خلاف بديعي أتي بها محمد الربيعي إن كان كالربيعي للأرض وشفيعي بكل خاطر وضليل ربيع بمدحتي شفيعي منطق لا بديع أنا بشهر الفرح شررها بالترح وفخرنا والمرح شهر النبي الأفضل تهنئة ربيعي بمرحتي شفيعي منطق لا بديع شر الفلاح والسرور شر به سدده موشح بين الشهور متوج كل ذي وترابي بمدحة الشفيع بمنطق البديع أقي بها محمدي بشار الفاتح إغلاق كون الفاتح من خص بالفواتح لزخات من الليل ربيع بمدحتي صفيعي منطق بديعي من شهر الخاتمي شهر النبي قاسمي وفاتح وخاتمي واخر واولي يا ربيع بمدحتي شفيعي المنطق لا بديعي أخي يا بشار الناصري للحق شهر الآمري بالارتشار الظاهري لكل واس مكملي يا ترى بمدحتي صفيعي في المنطق لا بديعي أكيدا أنا بشار الهادي لمنهجي رشادي وقائد وحادي إلى الطريق الأمثل ثانية ربيعي بمرحتي صفيعي في المنطق لا بديعي يا محمد شهر النيسان مولد خير إنسان قدوة أهل الإحسان والكاملين محمد ثانية ربيعي بمرحتي صفيعي في المنطق لا بديعي يا قد تمتي لآلي في عدتي ليالي بزينة المعالي كجوهر المفصل هنيت ربيعي بمدحتي شفيعي بالمنطق لا فريعي تهنئة الربيع بمدحتي شفيعي لننتقل بديع الرداء محمد بمدحة شفيعي منتقلا بديعي أقربي جمده يوما ونيل قربه وفضل حب ربه ومن رضاه أملي تهيات ربيعي بمرحتي شفيعي منتقلا بديعي أقربي الختم لي بالحسنى والجمالية الحسنى إلى المخر الأسنى مع الرفيق الأكمل أفضل رأيا بمنحتي شفيعي المنطق يا بديعي وكن لنا وليا ونصرا حفيا لا نختشي غويا بيا عبدك العلي دنيا ربيعي بمرحتي سفيعي المنطق يا بديعي صلى الله وسلم الإله عليه أفضل الصلاة ما دام كونه الإله من أزل من أبد لأزل مطورا بمن خطي شفيعي في المنطق لا بديع عليه وصحبه وزوجه وحزبه وكل آل حبه مع السلام الأكمل مطورا مرحتي سفيعي منتقي بديعي بجاههم يا إلهي اغفر لناظمها واسمع لقارئها وللذي حضر وأمهم بخف اللطف يكرمون وعيب الدهر ما فاته الكدر أجب دعاهم وأجل بالذي طلبوه بجاه أحمد مع أصحاب الخير اللهم صل على محمد الفاتح لما ولقى والخاتم لما صراطك المستقيم وعلى آله بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وإن كان الشيخ أحمد لم يترك لقائل قولا فلقد كان فلقد قال ما يمكن وما لا يمكن أن يقال تعززا بهذه الليلة وتبركا بصاحب هذه الليلة alladi ijtamana lahu mahabatan fi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam wa tawkidan litaalluqina bihada ad-din al-hanif alladi ramzuhu huwa rasulillah wa man taallaqa bi rasulillah faqad taallaqa بكامل هذا الدين وبجميع تعاليمه لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يتم إيمان أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه ومن ومن ومن فإذا رمز توكيد هذا الدين في قلب أي إنسان هو توكيد محبته لرسول الله وهذه اللقاءات إنما نعقدها توكيدا وتجديدا لتعلقنا برسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فبذلك يجعله مجلسا يستهويه قلوب العارفين quluubal muhibbiin wa yajtazibu wa yajzibu ilayha kulli alladiina yuhibbuuna taxalluqa wa tajadduda daa'iman bi rasulillah najtamicu haadihi leyla wa mislaha min allayaali fi safaa'i nafsi wa shafaafiyati almashaacir ونقاء الضمير ونقاء القلب كلها محاولة للوصول إلى باحة rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam wal istislaami lahu wa li diinihi fa nahnu laa nuqiimu haadihi al-layaali li annanaa nuriidu an nuxyiya bid'atan laa laa nuriidu an nuhdisa bid'atan li anna haadihi al-ayaami laa naquulu innahu diinun wa laa naquulu innahu min awaamiri d-diin wa innamaa naquulu innahu min awaamiri l-muhibbi min awaamiri l-hubbi wa min sidqi l-mahabbati fi llaahi wa li rasuulihi falaa najidu idaa wajadnaa فراغا من حياتنا إلا أن نجتمع لنذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم ونذكر أخلاقه ونذكر ما قدم للإنسانية فلولا هذا الرسول ما زال الإنسان في طور طفولته ضلالا وجهالة فجاء الرسول صلى الله عليه وسلم لينهض بهذا الإنسان من طفولته الجاهلة إلى أنوار إلى إلى إلى إلى إلى مستوى النور وإلى مستوى العلم الذي أنزل به أنزلنا إليكم نورا وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام إذا فبرسول الله sallallahu alayhi wa sallam arafa al insanu ayna yadau makanahu waman wa ma makanuhu fi hada al wujud مكانه في هذا الوجود أنه أشرف ما خلق الله تبارك وتعالى وأكرم ما خلق الله ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير من خلقنا تفضيلا إذا فالإنسان الواعي الذي يبحث عن نفسه سوف يجد أنه له من الله كرامة يجب عليها أن لا يضيع هذه الكرامة ويجب إحياء هذه الكرامة في نفسه ولا تحيا إلا بالتقرب إلى الله تبارك وتعالى عبادة وليس وسيلة إلى الله تبارك وتعالى غير رسول الله صلى الله عليه وسلم faman zaxama li nafsihi tariqan yusilu ila allahi tabaraka wa taala fa innama yuxaadicu nafsahu li annahu yacrifu xaqiqata almacrifa annahu la kaamila fi hada alwujudi misla rasulillahi sal allahu alayhi wa sallam wala muxiqa fi hada alwujud misla rasulillahi sal allahu alayhi wa sallam هذا التاريخ نقرأها بمدارسها الكثيرة مدارس الفلاسفة الكثيرة فاذكر لي مدرسة من هذه المدارس خرج منها طالب مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يكون مدارس الجندية والضباط والعسكر أخرج ضابطا من كل هذه المدارس مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يوجد ادخل في تاريخ الإنسان كله وابحث عن إنسان مثل محمد صلى الله عليه وسلم ستعود بالفشل لأنك لن تجده لأنه تبارك وتعالى خلق من الله واختيار من الله تبارك وتعالى أن يكون كما هو إذا فما أراد الله أن يكون هو الذي سيكون وين فرسول الله صلى الله عليه وسلم نجتمع له في هذه الليلة إحياء لقلوبنا نحن ليس إحياء برسول الله فرسول الله موجود موجود موجود ولكن قلوبنا هي التي تغيب ونحن نريد أن نحضر أن نحضر قلوبنا إلى ليلة نجتمع فيه محبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وبيننا من وبين هذه الجماعة من العلماء والصادقين والأولياء لابد أن يكون من بينهم رجلا إذا حضر يستحييه الله يستحي الله منه فيجيب ما يقول كل هؤلاء نسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا بذلك الرجل الحاضر بيننا وإن شاء الله وهم عديدون بفضل الله وقوته و Cheikh Ahmad laqad qaala an nafsihi fiya laqad qaala an nafsihi fiya لأن كما يقولون إنسان لا يح لا يح لا يتحدث إلا بما يعرفه والإنسان يعرف نفسه أكثر مما يعرف غيره إذا فهذه الصفات الكريمة لولا أنها موجودة فيه لا يعرف أن ينقله إلى غيره فقال أحد الشعراء jaa li Cheikh Ibrahima wa qaala fiihi madhan tayiban jamilan fa kaana بعض الموريتانيين غير التلاميذ حاضرون وهم شرفاء فلما استمع إلى القصيدة قال آه أحلى الشيء أعذب الشعر أكذبه أكذبه أعذب الشعر أكذبه فقال الثاني والشعراء يتبعهم الغاوون يقولون ما لا على على ما عندهم فالشيخ إبراهيم قال قال كان شاعرا حضر بين يدي الملك وقال فيه شعرا جيدا كثيرا فاستحلى الناس ما قال في الرجل ما قال في ملكهم كان فقال له ملكهم هل تعرفون ما فعل هذا الرجل قالوا له لا قال هذا الرجل اختار من صفاته هو ما أعجبه وأعطاني إياها وأنا لا أناقش وهكذا هكذا التاريخ يتكرر والناس يتكررون والناس الطيبون يتكررون في كل زمان وفي كل مكان ليكون ليكون بعضنا بعضا نبراسا وليكون بعضنا بعضا مهتدا wala yakuna baaduna baadan muqtadan li gayrina xata nasila bi diinina ila ma yuxibuhu llahu an nasila ilayhi wa ila ma yuxibu lana rasulullahi sal allahu alayhi wa sallam an nakunahu fa naxnu naishu asran la namliku li anfusina muqtadan naqtadih la budda an nauda ila axir awali taarix xata yakuna rasulullahi sal allahu alayhi wa sallam baynana linayida man naqtadi bihi لنجد من نشم إليه منه رائحة الخير ورائحة الفضل وأن الإنسان دائما في كل زمان يجب أن يكون معدن الخير لأن الله تبارك وتعالى خلقه ليكون معدن الخير ولقد كرمنا بني آدم وحملناه في البر والبحر وفي كل زمان أيضا يخلق الله في كل جيل من الأجيال من يكون لهم muqtadan man yakunu lahum misaalan man yakunu lahum qaa'idan yaquuduhum ila xayri tariqi ila alhuda ila alnuur ila alistiqaamati fi llahi tabaraka wa taala falawla zalika annahu min allahi hadiyatun min allahi ila xalqillah ma kaana qabilahu kullu naas walakin jaa min allahi fa qabila annaasu hadiyata allahi ilayhim فلهذا في هذا المحضر نجد أقواما جنسيات شتى عربا وغير عجم غربا وغير عرب وعجم وغير عجم نجتمع هنا تلبية لدعوة الصديق حبيب وصديق لنا ومحب لنا يدعونا إلى الخير لولا أنه من الله تبارك وتعالى ما كنا استجبنا لهذه الدعوة ولكن ما كان لله قبل وما كان لغير الله رفض فلهذا هذا المجلس مجلس يستهويه القلوب المؤمنة قلوب المحبة قلوب أهل الله تبارك وتعالى قلوب الذين يجتمعون في الله ويتفرقون في الله ويجتمعون مرة أخرى في الله تبارك وتعالى هذا هو هذا هو جماعتنا لا, لا, لا أريد أن أقول قومنا هؤلاء هم قومنا هؤلاء هم جماعتنا هؤلاء من ننتسب إليهم ليقودونا جميعا إلى أن نستطيع أن نؤكد في كل لحظة وفي كل يوم أننا من أحباء رسول الله يا رسول الله أننا اخترناك حبيبا اخترناك رفيقا اخترناك قائدا واخترناك كل شيء فينا فأمر ونحن نمشي وراءك وصلى الله عليك وعلى آلك وصحبك وسلم نجتمع محبة في الله إحياء li sunnatin wajadna abaana qad sannuha lana abauna qad sannu lana mahabbata rasulillah wa abauna qaaduna بأيدينا إلى أن نسلك طريقا يوصلنا إلى محبة رسول الله لأنه أي شيء غير هذا خسارة للإنسان ويحاسب عليه يوم القيامة أما في محبة رسول الله فهو دائما عطاء في عطاء في عطاء إلى أن نكون في غرفنا من من فوقهم غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار إن شاء الله في هذه الغرف نلتقي بعد حياة طيبة في هذه الدنيا حياة الدين حياة الأخلاق حياة المحبة حياة التواصل بالله حياة الحب في الله حياة الحب في الله تبارك وتعالى لو لم نجد من لم يضع لنا هذا الطريق لكان الوصول إليه صعبا لكان الوصول إليه صعبا لأنه حقيقة الجنة محفوفة بالمكاره محفوفة بالمكاره إذا فالوصول إلى مثل هذه المجالس الطيبة هؤلاء الناس من كل مكان رجالا ونساء بهذه بهذا الهدوء بهذه الطيبوبة بهذا الثبات بهذه الثقة xaqiqat loola annahu minnatu min allahi tabaraka wa taala wa hadiyatu min allahi tabaraka wa taala ilayna ma kunna wasalna ila hada wa narju allah alladi hadana ila hada نرجو إن شاء الله أن نستمر في أن نستمر على هذا الهدي وألا نخون من سبقونا ووضعوا لنا هذا المنهج نبقى في منهجهم في منهج حب رسول الله صلى الله عليه وسلم اقتداء بآبائنا واقتداء بشيوخنا واقتباء بعلمائنا الذين علمونا هذا الأسلوب في الحياة أنه هو الأسلوب النقي لا, لا العلماء الذين يأخذوننا في تأويلات يؤدي إلى هذا الوقت العصيب من القتل ومن التدمير wa min al uh, wa min al xarq kullu hada bi sababi bi daawa annahum yuqimuuna diin allahi tabaraka wa taala wa diinu allahi laa yuqaamu hakaza innama diinu allahi yuqaamu bilkalimati tayiba udcu ila sabili rabbika bilxikmati walmawcidati alxasanati wa in kaana laa budda min almujadala fajaadilhum billati hiya axsan fajaadilhum billati hiya axsan hada huwa diinu allah laysa sayfan wala qatlan kayfa yaqtulu lmuslima axaahu lmuslim ala annahu kafirun man alladi ataaka euh, man alladi ataaka wa axallaka maqaama allahi tabaraka wa taala xata tukaffira man tashaau wa tudxila fi man anta la la la shay innama anta baxi baxi baxi tabqa fi lardi tasca fi lardi fasadan wa laysa islaaxan narju allah tabaraka wa taala أن يأخذ بقلوب أن أن أن ينور لنا قلوبنا وأن يهدينا إلى طريق الحق حقا هذه جمع ناس يقولون علمانيون يقولون منورون أو است أو أو نورانيون أو است... لا نور لهم من لم يجعل الله له نورا فما له من نور والنور لله ولرسوله والنور لله ورسوله anzalnaahu kitaaban fiihi nuurun wa kitaabun mubiin yahdii bihi llaahu tabaaraka ridwaanahu qad jaakum min allaahi nuurun wa kitaabun mubiinun idan fa nuuru li ahli llaahi tabaaraka wa taala wa li ahli l-islaam ammaa haa'ulaa'i allaziina yazuumuuna annamaa yad'uuna ilayhi tanwiiran wa iiqaazan lid-damaa'ir innamaa huwa zalaamun fii zalaam wa laa hidaayata lahu wa sababu huwa kullu ma wa natiija hiya maa wasalnaa ilayhi ولن نصل إلى إلى دائما إلى ما هو أشنع وأفظع لأنهم يحلون أنفسهم مقاما لا يملكونه ويعطون ما لا يملكون mbokk yi tedd yi nekk ci ron mbaar mi yëpp sang yu tedd yi yëpp sang yu góor yeeg sang yu jigéen yi sang yu mag yi ak sang yu ndaw yi ñoo ngi leen di indil nuyoo xalifa cheikh Ahmed Tidiane ñoo ngi leen di indil nuyoo imaam cheikh Tidiane Cissé ak mbooleem waa Mérina ak seeni ñaan li tax ñu def jotaay bi fii ci Dakar yal nañu ko yàlla dëggalal ci suñuy xol jotaay bi lu ko fas fàttaliku benn xale boo xam ne mu ngi juddu ci ci septième sixième siècle sixième siècle mu yónni ci yàlla Muhammad sixième siècle ci la judd kooku juddoon sixième siècle tey moom la ñuy taj di ko ngénte tey moom la ñuy toog tey fii ne dañ koy ngénte ne dañ koy barkeloo ne dañ koy yëkkati lu ko may loolu lu ko may loolu est-ce que nit ku tedd ku jublu juddu ci ñaari baay yu tedd rek la walla nit la koo xam ne ah, ndax lan walla nit la koo xam ne defal na nit lu jaral nit waxtu wu nekk muy toog di fàttaliku jëf yu tedd yooyu nga xam ne muhammad sallallahu alayhi wa sallam defal na ko ndax su fekkee yéen ñiy jàng taarix yëpp ñuy jàng siire yëpp dangeen di gis yonent ci bala moo ñëw nu àddina meloon gannaaw bu mu ñëwee nu àddina mel yonent bi mu ñëwee mun nga wax mujju mujju Euh, ti sëñ Bàmba bi ñu doon tari sànq wahum indallahi qurudun yonent bala moo ñëw mën nga wax ne ñi nekkoon ci àdduna bi yëpp ay qurud wa ashbaha qurud rek ñoo fi nekkoon waaye doo ñoom ay nit ndax xamuñu woon seen qiima xamuñu woon seen valeur seen qiima ak seen valeur yëpp ñu ngi ko ajoon ci li am ci àddina foofu noo mën a amee àddina rek noo ko amee foofu mu lay àggali fi nga jëm kon nit waaye leneen lu loolu mënu la àggale su ko defee nit ñi ay waxuus rek lañ ku mën sa morom dóor ku mën sa morom duma ah ku mën sa morom duma ah, defe naa ba léegi am na mbëri làmb yu koy bàkkoo ah ku mën sa morom duma moo moo fi amoon ku mën sa morom duma rek nit ñi di lekk ale li fi lu nekk ba yonent sallallahu sa wa sallam moo ñëw ci lu matul dundu doomu aadama vingt vingt trois ans vingt trois ans àddina bu lëndëm boobu yëpp. nga ëlbati ko soppi ko leer ci vingt trois ans vingt trois ans àddina bu ñàkkoon maandu boobu yëpp nga indi ko ci addina bu maandu ci vingt trois ans addina bu ñàkkoon xam-xam boobu yëpp nga indi ko ci addina xam-xam ci vingt trois ans àddina bu lëndëm boobu yëpp nga soppi ko muy àddina leer si 23 ans adduna boobu nga xam ne nit amutoon benn yaakaar nga indi ko dundal ko ci kaw yaakaar boo xam ne ba léegi yaakaar yooyu tasagut parce que ba léegi nit mu ngi am ci xolam ne dafa bugg a dem aljanna ne dafa bugg a dem aljanna ah nit loolu la bëgg loolu la bëgg yoonu aljanna nag kenn ku nekk yaakaar nga ne mën nga koo tëralal sa bopp mu yóbbu la aljanna mën ngaa tëralal sa bopp lu yóbbu aljanna waaye fekk loolu mënut a am ndax aljanna ko yàlla moo ko moom. yàlla moo wax ne sama tabax bi ñu jaar fii ñoo ciy agsi ñu bëgg lii ñu def lii ñoo ciy agsi su ko defee nag gannaaw loolu mooy mooy mooy mooy mooy mooy jëfi yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam ci àddina bi bala moo am bala moo am nekk yonent yàlla muhammad yàlla yónni ko mu nekk njiitu doomu aadama yépp jàkk na bala moo àgg ci loolu nekk na njiitu arab yëpp yekku na njiitu arab yëpp ci dëkkam makka ndax yéen ñëpp jàngeen ngeen ci siira ne tudde woon nañ ko al amin al amin hmm? tudde woon nañ ko ko amin boobu ñu ko tuddee woon mooy gis nañ ci moom ay jikko yoo xam ne moo gën seen jikko yi gis nañ ci moom matal goo xam ne moo gën seen matal ñoom gis nañ ci moom fit boo xam ne moo ëpp seen fit yi ñoom moo tax ñu mun ko wóolu tuddee ko amin ba lu ñu am wóolu ko ko dénk moo tax yónnante bala moo nekk yónnante nekk na njiitu nit ñëpp nekk na njiitu waa Màkka yëpp nekk na njiitu arab yëpp ba yónnante gi ñëw ak mottali ko mu nekk njiitu àddina bi yëpp sallallahu alayhi wa sallam ndax wa ma arsalnaaka illa kaafatan linnaasi bashiran laysa ila al arab wala ila al wala wala wala wala wala linnaasi kaafatan ñëpp ci ñoom laa la yoon ni ñëpp ngay àggali sa yoonanti bon ñëpp la moom kenn tanewut kenn ci yow lu dut ki nga xam ne rek mu ngi góorgóorlu ci yow noo xam ne ki góorgóorlu dana am loo xam ne ki góorgóorlu du ko am àddina bi sax ñii góorgóorlu ñoo ci am loo xam ne ñii góorgóorlu duñ ko am rawatina nag yàlla ak yónnantam ak bëgg a dem aljanna bëgg dem aljanna aljanna dafa dafa dafa neex dafa kawe te nit ku ndaw du fa dem aljanna nit ku ndaw du fa dem nit ku kawe moo fay dem nit ku am jikko moo fay dem ndax lan seetal alxuraan yépp lu mu lay jàngal mooy daf lay jàngal jikko yoo xam ne di nga àgg ci civilisation boo xam ne boo demee aljanna di nga mën a dund boo jàngul alxuraan foo jëlee jikko yooyu foo jëlee civilisation boobu ba bu ëllëgee boo mën a taseeg malaaka mën a mën a jëflanteeg moom boo taseeg leneen mën a jëflanteeg moom boo taseeg loo xamut mën a jëflanteeg moom loolu moo indi alxuraan pour mu defal la nga nekk nit bu civilisé nit bu mën a jëflanteeg waxuma la nit ñi rek waaye mënta jëflanteeg leneen loo xam ne itam du nit ndax di nga jëflanteeg ñoom par force ah yaa ngi jëflanteeg ñoom fii ci àddina bi yaa ngi leen di gis gisoo leen ñu ngi jëflanteeg yow ëllëg nag ci alaaxira dañ dañuy jàkkaarloo ak yow di jëflanteeg yow moo tax ci nga xam ne civilisé nañ fii bala ñoo dem boo demee yàlla leen di wax si alquran euh, malaka yaa ngi leen di wax ne salaamun aleykum tibtum salaamun aleykum tibtum fadxuluha xaalidin parce que dañoo civilisé bala ñoo dem dañoo bale seen civilisation civilisation alquran bi bi mu leen doon yaree moom lañ leen doon moom lañ yóbbaale ba mu bañ ko yóbbaale moo tax ñu mën leen a wax ne salaamun aleykum tib tibtum tibtum ah seetal baat boobu tibtum moo tax fadxuluha xaalidin civilisé ngoon mën ngeen a dugg aljanna nit ku civilisé wul du dugg aljanna nit ku oh moi je m'en fous civilisé wuñ mënuñoo waxtaan mënuñoo waxtaan ak ñuñ gisut ah koo xam ne nag dañ la préparé pour nga waxtaan ak koo xam ne ëllëg di nga ko gis bu ko defee mu ngi leen di wax ne salaamun aleykum tibtum fadxuluha xaalidin ah yal nañu ci yàlla boole yal nañu ko yàlla may am na ñoo xam ne nag fut yéen fu ngeen nekkoon bi bi ñuy wax ah ñun de na ah, ale safara ale dem na safara ngeen di jëm loolu mooy xew jamono bi ñu toll nag jamono complication la surtout jamono boo xam ne jamono technologie technologie bu kawe technologie bu àgg fu nekk technologie boo xam ne nag buñ amee benn ñoom dañ ci yokk fukk fen benn dëgg dañ ci yokk fukki fen li ñuy présenté yépp ne dëgg la ci télévision yi di ko gis li ci ëpp yëpp dara li ci ëpp yëpp du dëgg waaye nag comme que dañ fee bëgg a nekk bëggee fee nekk ne ñun ñooy borom doole ñoo am ñun lañ war a roy jaral na leen ay fen te dañuy fena bëri gis nga ni ñuy fenante ci marché bi jëndanteeg jaayante boo demee scientifique ñun la ñuy fenante ci seen biir di jëndanteeg jaayante moo tax ñoom seen bopp wóoluwante wuñu gëmante wuñu dañuy weddi wante su nekk boo demee ci ñoom dañ la wax ne américains yi dem nañ ci weer wi nangam ak nangam am ñoo xam ñu taxaw wàcci yàlla ne américains mus yoo teg seen tànk ci weer wi du dëgg dañuy fen ndax weer yi mënoo cee dem ndax lii ndax lii ndax lii ndax lii ndax lii indi ay sell ñoom rek ñoom kese ñooy weddi wante ah euh, liñ tëraloon ci ay xam-xam tëral na xam la fi mu nekk ñoom dañoo delloowaat di seetaat ndax lii ñu waxoon nit ñi depuis cinq ans gens yi bi leen ko wax ne xam-xam la est-ce que dëgg la wala du dëgg yu bëri dellu nañ ci gannaaw gëmatuñ ko moo tax maa ngi wax ak xale ma leen tubaab yi seen xam-xam dafay lox fay lox karkar hmm? ndax léeg-léeg mu ni si dorout nangam bay na ma la yonent waxoon depuis sixième siècle ba tey tey la ko xale bu jigéen bu ndaw bi gën a nangu hmm? boo xam ne xamagu ko tey la ko gën a naw xale bu xale bu góor bii di nàmp papam ànd ak moom indi ko ci gàmmu gi tey kii dootu fàtte yonent yàlla Muhammad xam na ko te dootu ko fàtte bu demee ba juróom benn fukki at xam-xam bu dëgër boobu mu xamoon ba mu nekkee xale xale xam-xam boobu rek moo fi nekk yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam donc bon su fekkee yàlla mayee nañu ne loolu mooy suñ commencement mooy suñ diine mooy suñ càkkuteef yàlla may nañu li nga xam ne noonu la gën a kawee mais yàlla na ñu dimbale ñu mën koo amatul repère àddina bi amatul repère amatul repère fenn amatu ko ci politiciens yi repère nekkatu fa amatu ko ci ulama yi repère nekkatu fa amatu ci dara loo xam ne nit mën na koo gis ne lii dama koy roy parce que dina ma àggali ci ci ci ci sama nite parce que buy dund te àggoo ci sa nite ci sa nite bu baax a baax boo ci àggul vraiment da ngay dund rek kër kuruut nii ah, ngeen baal ma dangeen ngeen dund rek comme ay ay ay ay baal leen ma ay golo ay golo rek ngeen ngay dundee lekk naan bànneex tëdd nelaw kii yeex na surtout ah. bu ko defee bànneex boobu lépp lu la ci àggale rek bañoo bañoo ko da ci àgg moo tax jamono boo xam ne euh, iblis moo koy atte suñ jamono bii ñu toll iblis moo koy atte Iblis nag ba ba muy wax ak yàlla ne yow yàlla may nga doom aadama lu bari loo xam ne mën na ko protéger boppam mën na ko tasaare lim am waaye man mayoo ma dara lu may duggee ci seen biir tey tey nga def ñuy sama noon lu may def yàlla na ko euh, istafziz minhum istafziz minhum man istataata bi nga jilee ka wa wa shaarikhum fil amwaali wal awlaadi waiduhum wa maa yaiduhum sheytaanu illaa guruuran mu ne mu ngo pomangoog man istatat minhum bi rijlika wa xaylika wa shaarikhum fil amwaali fas yaa ngoog noosukaay yaa ngoog musique baa ngoog pecc maa ngoog yëpp jëlal may naa la ko pour nga di ko naxee nit ñi di ko duggante ak biir nit bu ko defee loolu yëpp mi ngi ci loxo iblis te ku ne xam na ne loolu fi nekk ni tasaaroo na lool ci jamono bii moom la nit ñi gën a bëgg ci seen bopp moom la nit ñi gën a bëgg ci seen bopp mu ne Iblis mu ngi tukki taseeg yonent yàlla Isaa mu ngi téye benn bant moom ci aj fukki objet ah yonent yàlla Isaa ne ko waaw yow sa bagage yi lan la mu ne ko lii nangam la lii nangam la lii nangam la mu ne ko lii pour kan la mu ne ko lii sàngara la pour nit ñu suufi ñi la ñu ñàkk fayda ñi ñoom laa koy ñoom laa koy naxee mu ne ko lii nag lan la mu ne ko lii mooy xaalis mu ne ko lii nag mu ne ko lii lii ñu bëgg seen bopp yi ñoom laa koy naxee xam ne seen bopp rek lañu bëgg ñoom laa koy naxee mu ne ko lii nag moom lan la mu ne ko lii mooy mooy mooy jigéen mu ne ko lii nag moom mu ne ah, yi kalifa yi mag ñi ñoo ko moom du affaire xale kooku bu ko laaj demal rombal laajal leneen donc bon lépp loo xam ne eh, eh, eh, mooy ma mooy ci àddina boo demee suñ jamono bi yëpp moom la ñuy dund ah réer ndof gëm gëm ne man dara laa ndax diwuma jur wala doomi diw laa yëpp bunti réer rek la bunti ñàkk xam la bunti ñàkk doylu la waaye boo xamee sa bopp dëgg dëgg dëgg dëgg xam ne man jaam laa boo xam ne wala xat karam naa ba bani aadama boo xamal naa fil bari wal baxri wa uridu min nafsi an asila ila hadihi alkarama bi hawnillahi tabaraka wa taala wa tayidihi laysa minni ana ana la hawla wala quwata illa billah lu tax yàlla wax loola ko la hawla wala quwata illa billah lu tax yàlla wax loola da ne la da ko wax parce que xam na ne dara nekkul ci yow lu dul moom yàlla moo fi nekk parce que bu fi yàlla nekkul ana looy xoolee ana looy gisee ana looy déggee ana looy doxee ana looy waxee ana looy lekk du jeex du xaj ah yooyu yëpp nekku fi moo tax yàlla ne la waxal laa hawla wala quwwata illa billah sa loxo bi sax boo ko yëngatee bi hawlillahi wa quwwatihi nga ko yëngatee maa ngi nii di wax bi hawlillahi wa quwwatihi atakallam law la hawlillahi wala quwwati maa indi lisaan maa indi wax maa indi nuut ko yëpp ci yàlla rek la bàyyee ko bon nag yàlla moom nga xam ne moo ñu moomal boppam santal ñu boppam ñu ngi ñaan yàlla yàlla nekk suñ ndimbal waxtu wu nekk ak suñ jamono bu wéet bii wéet amatuñu repère benn repère amatul amatul ci politiciens amatu ci scientifique yi amatuñ ci euh, hatta boo demee ci madaris si diine yi boo demee repère amatu fa ndax seet leen li xew ci turu lislaam ah alqatl wa tadmir taxta qiyaadat bu ko araam taxta iyaad salafiya taxta kaza سلفي سلفي تقتل غيرك أنا مش سلفي أنت سلفي وأنا مستقبلي أنت تنتهي وأنا أجي ها آه إذا ف ف ف ف loolu yëpp ñàkk repère ñàkk a dellu ci alxuraan ñàkk a jàng alxuraan ni ñu ko yàlla waxee boo jàngee alxuraan waxtu wu nekk sa xolo ngi dund waxtu wu nekk ha haza allahu xaadirun maaka bi kitaabihi bi maani kitaabihi bi jalaali kitaabihi fa takunu bi dalika insanan jalilan insanan mahbuban insanan qariban ila qulubi kulli nnaasi li annaka kunta insanan billahi laa insanan bi nafsika wa bi shaxsika wa bi maalika wa bi quwatika laa hawla laka wala quwata anta laa tamliku shay ah xatta walaw jumiat laka dunia bi ma fiha laa tamlikuhu لأنك غدا تمشي وتتركها أو هي تمشي وتترك لا تملك لا, لا تضمن شيئا لنفسك إنما الضامن هو الله تبارك وتعالى yal na yàlla yal na yàlla barkeel mbooloo mi yal na yàlla taxawuñu gërëm Cheikh Oustaz ci jotaay bii namoon naa ko namoon naa jotaay bii quand même ndax ay at a ngi nii tooguñ fii te am na nit ñoo xam ne toog ak ñoom. xaqiqa saada la saada fi dunia wa saada fi axirati yàlla nekk ñun ñii mooy ñun ñii ah yàlla nekk mooy nit ñii parce que mën nañ koo nekk itam ndax comme xadis boobu ngeen di jàng euh, euh, euh, laytani raaytu ahbaabi lasna ahbaabaka ya rasulallah antum ashaabi walakin ahbaabi man yaatuuna baadakum wa yuhibbuunani mislakum walaw tuliba minhum dunia bi ma fiha li ruyati la faalu ah haulaika hum ahbabi wa hada ma faalna tarakna kulle shay tarakna duniana wa axrajna amwalana fi sabilillah wa xasharna zawjatina wa awladina wa banatina taxta hadihi almanassa amalan في أننا سنلقى رضا الله ورضا رسول الله تبارك وتعالى إذا فنحن حقيقة من أحباب رسول الله كما بشرنا Euh, euh, ñaan yàlla bu baax yal yàlla yokk yal yàlla barkeel yal yàlla dëgëral yal yàlla yaatalal li nga bugg ci yëpp ak yéen ñépp li ngeen bugg ci seen jamono ci seen époque ci istiqaama ci hidaaya ci nekk nit nit bu civilisé ci nekk nit bu nit bu nit bu nit bu mën a jàng jàng du téere du téere jàng du téere ah. téere daf lay mottali ci nga mën a jàng dafay àggali ci nga mën a jàng dafay àggali ci mën a jàng waaye jàng du téere waaye dina la àggali ci nga mën a jàng boo mënee jàng da nga jàng danga nga jàng jotaay bi la am hmm? nga ko jàng ku jàng mu nekk benn laaya bu dëggu ci laaya alxuraan yi nga xam ne yàlla nga koy bëggalee ay jaamam walaayika hum xayrul bariyati yàlla nga koy bëggalee ay jaamam waxtu wu nekk am na ñoo xam ne hum xayrul bariyati fi kulli zamanin wa fi kulli makanin wa ulaayika hum charrul bariyati mawjudina fi kulli zamanin wa fi kulli makanin tax booy demee Cheikh Ibrahima mu ne xayrul bariyati charrul bariyati euh, euh, ci أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين أسفل سافلين كثير من المفسرين يقول أنهم أخطأوا في تفسيره لأنهم يظنون أن أسفل سافلين هو أن يصل الإنسان إلى سن متقدم حتى لا يكون كما كان جميلا حتى كذا وكذا قال لك لا هذا ليس تفسير هذه الآية ليس تفسيرا لهذه الآية إنما تفسيرها هم في أخلاق يرتكبها الإنسان فيكون مثل مثل الضب مثل الحيوان مثل الشيطان فيكون في شر البرية أولئك هم خير البرية وهناك أخلاق يطبقها الإنسان فيكون من أحسن الناس فأولئك هم خير البرية تفسير هذه هذه الآية يفسرهما أولئك هم خير البرية أولئك هم شر البرية بالوسائل التي توصل أن تكون خير البرية أو شر البرية ñu ngi ñaan yàlla yàlla ñu yàlla màggal ci diine rafetal suñu diine ci suñuy xol rafetal ko ci suñuy jikko rafetal ko ci suñuy dëkkandoo rafetal ko ci suñuy àndandoo euh, diine moom rekk moo mun a musal nit diine du sama diine moo gën diine kii nekkul foofu sama diine moo gën diine jullit la màggan keneen ku dul jullit ce n'est pas vrai du dëgg li am mooy jullit la mais lu ma suma jullit googu sant mooy lan mooy lan ah, ba nga xam ne dina àgg ci daraja bi nga xam ne moom la yàlla wax ne akramakum indallahi atqaakum akramakum indallahi atqaakum su ko defee boo àggee ci foofu te loolu ay jikko yu kawe moo fay àggale mbaax bu kawe moo fay àggale comme ni ko Cheikh Ibrahima doon waxee ci Euh, cheikh euh, doon waxee ci waxtaanam bi axlaaq yu kawe jikko yu kawe jikko jikko jikko yoo xam ne benn bu ci nekk rek mën na xëcc nit ah, ci bëggloo ko lu baax ci bëgguloo ko lu baax bon affaire yëpp mi ngi aju ci jikko wa innaka la ala xuluqin لست وانك على نبوه عظيمه او لعلى علم عظيم او لعلى او لعلى ولكن وانك لعلى خلق عظيم لان رساله النبوه هو الوصول بالانسان الى هذا الخلق العظيم ها ف ف bu baax a baax ñaan yàlla yal nañu yàlla may yal nañu yàlla may dal yal nañu yàlla may bugg Cheikh Ibrahim ku ko yàlla may dolli na la ku ko yàlla may dolli na la ndax moo ne wala day naa ci àddina ah? may na la may na la may na la may na la yonent ci yàlla Muhammad may na la Cheikh Ahmad Tidiane mais wala day Ibrahim te bu ngeen bu ngeen dalee seetlu ko da ngeen di gis ne noonu rek la ah waaye nag dafay dafay am ñu dal wala si anzala sakinata fi qulubi lmuminin ah li yasdaadu imanan maa imanihim ah ziyaada maa imanihim ziyaada su ko defee bu la mayee mayat la mayat la wala day naa masjid ba tey taxut may gi jeex ba tey am na lu muy maye am na lu muy dolli yal nañ nekk feeñuwaayu ndollan googu ah ci suñu jikko ci suñuy euh, nite ci suñ nite ci suñ baax ci bëgg lii liñ war a bëgg ci bañ liñ war a bañ euh, yal nañu yàlla may kawe te bañ ñoo suufee yal nañu yàlla yokk te bañ ñoo wàññi yal nañu yàlla dimbale yàlla bu ñu bàyyee suñu bopp ndax amuñ benn kattan yàlla ñu yàlla leeralal te bañ ñoo lëndëmalal laïcité yi ñu joxe du leer de parce que amuñ ko wa man lam yaj'al illaahu lahu nuuran famaa lahu min nuur famaa lahu min nuur te nuur boobu yàlla nee na allahu nuuru samaawaati wal ardi ba pare ne nuur boobu wàcce na ko fii kitaabin jaakum min allahi nuurun wa kitaabun mubiinun yahdi bihi llah yahdi bihi llah kooku moo am nuur mais ñii amuñu nuur dañuy lëndëmal nit ñi rek di leen euh, euh, di leen caaxaane di leen wax wax yoo xam ne taxawut euh, Dakar am na ci vraiment benn bés dama déglu rajo tombé comme ça man bëgguma déglu rajo Sénégal yi sax waaye dama ci tombé rek dégg benn xale bu jigéen ñu ne rakk Youssou muy muy nettali dundam liggéeyam nim koo nim nim ci amee ndam waaye ndam bu ci am du ko àggali ci satisfaction bi nga xam ne moom lay bëgg dina kontaan rek parce que ndam la waaye du lim bëgg mu ne satisfaction bala koo am bu toogee ba nit ñi tëdd mu jàpp dem lal saajaadam ci ruqam di julli mu ne foofu la satisfaction nekk vraiment xaw ma woon de ah loolu la il faut xam xam valeur xam ni muy ut lan la amal alal judul jeex lu xaaj mais am na ci xolu nit ci kontante dëgg dëgg euh, subhana rabbiyal aala wa bihamdihi moo ko ko moo ko cay àggal subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi moo ko cay àggal toogaay bu toroxlu boobu ah dajale sa bopp yépp yàlla maa ngi nii maa ngi nii ah munuma xawma awma waaye maa ngi nii ci sa kanam ah, jeex na loolu mooy loolu mooy loolu mooy satisfaction boobu xale bu jigéen boobu wax ne àgg na ci ah du li muy liggéey di ko gagné di am ay pouvoir ay nangam nangam mu ne loolu yëpp daa d'accord neex na mais du satisfaction bi nga xam ne bu toogee ba guddi mu daal saajaadam kabar bi julli mu ne ruq boobu la fa nekk vraiment ko xamoon da nga ko wuti ah benn jigéen moo ko wax kat te artiste la comme yenn artistes yi dégg nga bon aar du du fecc ak dangam ak nangam rek la mais tarbiya yar nit la baaxal nit la kaweel nit la yal nañu yàlla xamal te jàngal ñu te dimbale ñu salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. macha allah balaa ñu ngeen dem dañuy jox kàddu gi léegi Cheikh Cheikh Aboubacar ibn Cheikh Ibrahim Niass. moom ci boppam teew na léegi danañ ko jox kàddu gi moom abu Aboubacar mu laaj hadiya baay waaye balaa boobu dama bëgg ñun ñëpp ñu wax jërëjëfee Baay Ñas na ñëpp wax jërëjëfee Baay Ñas jërëjëfee Baay Ñas jërëjëfee Mawlana Cheikh Ibrahim Ñas fahal absara bi مثلي صائرا سلوكي وجهدي والعلوم ما شاء الله su ko defee Cheikh Ibrahim Niass sax nee na ma firi ko bàyyi nee na hal aynaaka misliya saairan ndax sa ñaari bët yow mii ma mas gis ndax sa ñaari bët yi mas naa gis ku mel ni man hal absara aynaaka misliya saairan ndax sa ñaari bët yi mas naa gis kuy dox ku mel ni man suluki ni may soobee wa jës ni may jës boo wal ulumu fuyuudu ak xam-xam yi dooteeku ala kulli xaal loolu daa déedéet rek la wax nee na fen sax fal absal aynaaka ahla maishatin min al abdi fa huwa alhamdulillahi kulluhu ndax sa ñaari bët yi mas naa gis ku mel ni jaam bii di Cheikh Ibrahima Niass jaam bi nga xam ne léppam alhamdulillahi la jërëjëf Baye Niass su ko defee Cheikh Aboubacar mu ngi fi danañ ko jox kàddu gi léegi mu laaj hadiya baay moom macha allah dana wax ndax bés bi bésam la depuis ñu sos bés bi musu koo tardé xanaa bu ko tardé day fekk mu nekk ci biti réew waaye su fi nekkee dana ko tardé du ko tardé su fi nekkee moom musu koo tardé su fi nekkee Cheikh Baye Diouf moom mooy ki nga xam ne su fi nekkutaan moo daan méngoo laaj hadiya baay gi waaye Cheikh Baye Diouf euh, Serigne Mbaye mu ngi nii teew dañ koy jox mu sànni kàddu en même temps mu laajaale hadiya ndax loolee macha allah moom cërëm la cheikh alhaaji muntaka cheikh bay alhaaji muntaka wax naa la mu ngi ci jotaay bi moo toog noonu waaye cheikh zeynul abidin moom moo toog noonu dend ak cheikh Serigne Mbay waaye cheikh kabir dem nga xam ne moom mooy xalifa Cerno Hasan dem moom ngeen gis mu toog nii kii dend ak moom mooy cheikh Mouhamadul Habib di rakam ala kulli jotaay bi am na solo ndax mboolem ñi nga xam ne ñoom ñooy sang mi dina bàyyi ñëpp teew nañ ci jotaay bi loolu nag ñun ñu ngi sant yàlla bu baax a baax waaye eh, Cheikh Ibrahim Ba rakki sëriñ bi la mu ngi ci jotaay bi dégg nga Cheikh Abdoul Aziz Ndiaye di muqaddam bu ràññeeku di xarit sëriñ bi moom itam teew na ci jotaay bi su ko defee sëriñ bi dama lay jox kàddu gi léegi léegi. Cheikh Malick mu ngi nii toog dend ak Chérif Hadi Niama moom itam di ko xam ne ku baax la ku ràññeeku ci pay bi sëriñ bi kàddu gaa ngi ni bismillah alhamdulillah ngi sant yàlla bu baax mbooleem sant ñu sante ki ñuy fekk ci lëndëm dugal ñu ci leer ki xotti suñ xol yi def ci yàlla ki yàlla sédd muy seddale muy cheikhul islaam cheikh Ibrahima Niass yàlla nañu yàlla taas ci barkeem cheikh Mouhamad El Mahi Ibrahima Niass ci diggante bu gàtt boo xam ne mar moo ñu rayoon waaye màndi nañ tey su fekkee na sàngara la yow la nga wax raw na sàngara ci neexaay ci loo xam ne nit ki di ko yëg jàngal nga ñu ci lu gàtt ci doomu aadama lan la war a nekk ak lan la war a gëm doomu aadama ci lu mu war a nekk li ñuy jàngal ñun taalibaay bàyyi mooy nekk ci siraatul mustaqim nañ jaamu yàlla ragal yàlla te topp Mawlaana Cheikh Ibrahim lu mu wax waay waay sëñ bi ñoo la bëgg ñun ñoo la bëgg te bëgg la nga yàgg fi lool ndax jotaay boo toog nee naa ne suñ ko xoromee ba pare soo ñëwee yaa koy sàppali loolu yàlla moo la ko defal kenn mënu ci dara ndax léegi rek tey ci ngoon waxtaan boobu nga fekkoon tey ci ngoon ñu ciy waxtaan wax nga ne nit du dara ay maay doomu diw ak maay doomu diw ak daw nekkal personnalité bi nga xam ne yow doomu aadama bi jàngal nga ñu ne nit dafay nekk nit gannaaw su ko yàlla may lem xam waaye sëñ bi danga ñëw ndakaaru fekk ma fii man ma sarak ma dëkk ci Dakar gii suñ xalifa nekk sarak muy Cheikh Mouhamadul Amin Ibrahima Niass waaye yàlla may ma tamit ci ndakaaru gii taalibe yépp déggal ma nangul ma du dara lu dul xidma sëñ yi tey moo ñëw fii seet suñu ñun taalibe bàyyi yàlla daf ñoo may loo xam ni mayu ko kenn ci kaw àddina taalibe boo xam ne ër bu nekk mu ngi gis sëriñam te wax naa leen na leen doomu Cheikh Ibrahim yi dafa am doom ci biir kaani lu muy saf-saf doom ba ndaw baa ca gën a saf mun nañoo nekk ñun ñëpp ay doomu Cheikh Ibrahim waaye dafa am ñoo xam ne spécial yàlla daf leen a may loo xam ne ci biir ci biir loolu nag pour nga xam ko il faut nga nekk taalibe il faut nga dund taalibe in faut nga nekk aarif dëgg nga mën a nangu loolu sëñ bi dundal sëñ bi màggal yàlla màggal na la ba pare jotaay bii ñu fi toog ñëpp seen xel xool yi fees na tëpp wallahi man mii di wax ak yow sax xaw ma ci lan laa nekk waaye damay wax ne lu tax may laaj addiya moom soxlawu ko bëggu ko parce que moom mooy sëriñ boo xam ni moom ngay romb mu sol léegi lu bees nga ne ko yére bi rafet na mu ne la ah, mais jël ko simmi ko jox ko nga jox ko milliard mu tourné xool ka dend ak moom mu yëkkati jox ko ko soxlawul dara ci àddina lu dul yàlla rek la soxla ak defar jaamu yàlla yi waaye nag suñu amee lu rëy lu mel nii ñu ñëw ñun lan moo ñëw